ayca ayca Bilal ñi ngi ak le grand champion Diène Kairé nga xam ne moo bëre woon combat bu rëy baak Modou Anta Diène maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw ñu ngi sant wér di la. mooy bandi. borom Leewtoo yow yaay bandi bi ma wax bandi de moom mooy bandi bi. <laughs> gannaaw ba nga jógee ci Diène Kairé ci ci ki nga xam ne mooy moo Modou Anta ci lan nga nekk fi mu toll nii. waaw maa ngi jëlee ma nekkoon rek xam nga ñu ngi fii di waaj di liggéey di xaar quoi di xaar bu baax xam nga. waaw di wax tudd sa combat ak ak adversaire yu bari. waaw tudd nañ maa ngi dégg sànq ñuy tudd franc. waaw loolu am na combat yu bëri ñuy tudd sama gars yi ñoo ko nangu ay baaba yi duñ ko seetaan comprendre nga. waaw man bëre rek laa lijjanti du ay turu mbër sax man na gars yi d'accord ak ñoom rek ñu ñëw ñu bëre. waaw mais tëbuñu tëb yegg fii dañ dañ def ay preuve kon am na ñoo xam ne mérité nañ bëre ak ñoom ñu leen jox ñu bëre wane suñu bopp. comme ñan ñi nga mérité lu bëre. noo xam nga doo tudd. doo tudd làmb yaatu na. waaw sa mu ngi leen di seeti. waaw ah, nopp ci wuy ma. non non non attention. non non attention wuy ma. yow xam nga ñi nga war a bëreel parce que neneen mbër bu xamee ay adversaire am neex a wutal combat macha allah ci victoire nga jógee nekk ci dynamique victoire bokk fi mu toll nii war war a war a dugg nag ci ñi nga xamante ne bii ñooy VIP. waaw ñooñu nag ñooñu ñoo war a nangu bëreeg man. ponkali mais ñooñu koo ci seeti mu ne booy bi xaw ma la nag lan baa ñu liggéey lay xaar. waaw mais sa combat ak lu ko yàq. no Zoss Zoss bëgg naa lu ko gën a métti. ba nga lu ko gën a tàng. xale mais Zoss tàng na. waay mais mais Franc Franc ngi fi. combat jànq laa bëgg. Franc xaar lu gën a diis laa bëgg.